ci ma def euh, huit mois def nañ fa huit mois trois jours. fan euh, nekkoon. Euh, ñu ngi woon ñu ngi woon Rëbës ñu ngi woon cent mètres. ñu ngi woon cent def nañ fa huit mois huit mois yi teg na trois jours. Mm-hmm. bi ñuy jàpp ñun groupe la ñu woon amoon na quatre députés quatre députés ak ñun yeneen quatre personnes comme ku mel ne man ak Omar bi jiite Modap Omar Bamba Diop. ak un professeur bu ñu wax Yaya Koli ak benn safoor. xam nga doon dawal seulement. doomu imam ndaw bi feneen lañ ko jàppee. d'accord ñoo boole ko parce que ñoom bi ñu jàppee ñu nekk huit personnes ñoom dañoo jàpp yeneen onze personnes foofu la leen ramassé ci biir Dakar. doomu Aliou Ndao lay wax quoi. doomu doomu euh, procureur Alioune Badara mm-hmm. mu ngi tudd Ahmed Lamine Ndao moom fu mu fa lañ ko jàpp ñu ngi ko jàpp ci biir côté yooyu noonu quoi fa lañ ko jàppee. ak yeneen yeneen dix personnes yi bokk ak moom. Mm-hmm. bi leen jàppee ba si guddi gi ñu indi ñu indi ñu central dajale ñu na ñu yéen ñëpp lañu fekk ngeen di manifester wu boole ñu benn dossier. alors que ci buntu euh, clinique. Euh, suma assistance lañ leen fekk jàppale. fa la ñu fekk jàpp ñu fa la ñu fekk jàpp ñu nga xamante ni maam ñu ñu boole sax xamuñu leen. Mm-hmm. maanaam ci biir foofu lañ xamante ci violon bi. Mm-hmm. dundin bi ci biir prison bi rëbës ku xam rëbës moom xam ne paquetage foofu la daal di fekk baax. Mhm. ngeen nekk ñi nga xamante ni mën naa wax su ma ñemewul yàlla que peut-être gulet ngeen ni ñu leen di jël di leen dugal prison euh, dundin bi foofu naka la demee woon. man ba si si mën nañu sax première fois ñu am problème ci ak ak ak policier maanaam dem ci kanamu yoon. Mhm. avant loolu mosuñu sax am problème ay plainte genre yooyu noonu. Mhm. policier ay policier leen daan dégg di leen gis rek léeg-léeg gis leen ci yenn rassemblement politique yi wala kenn euh, bi ñu demee biñ ñun biñ ñu doog a jàpp dañoo wax ne duñ fanaan central duñ fa fanaan li ko waral mooy liñ ñuy tuumaal dèjà loolu xewul xam bu ñëwee ne la danga mam saawolof dafa dem ci émission bi wax fa loo xamante ne ni jaaru yoon dañ koy teg loxo. Mhm. dèjà émission bi amut. kon boobaa mënuñ ko tuumaal parce que demul ci émission bu amut ba mu fay dem ñun li ñuy tuumaal mooy manifestation. maanaam ay dañ ay manifestants lañ dèjà manifestation amul. le mhm. juin kenn manifesté wul du ñun du keneen ça veut dire que ñu lañ jàppal mooy duñ fa fanaan bu ñu téyee balaa guddi ñu bàyyi ñu mais teewul dañoo siisu téye ñu noonu xëy nag jëmmul ne dafa amoon beneen objectif bu ñu amoon mooy bëggoon nañ dissoudre parti bi bëggoon nañ téye président Ousmane Sonko fan yooyu noonu léegi li ñu mënoon mooy jàpp le maximum. Mhm. Ah, pour bu ñu demee ba ah, poser. seen acte boobu mooy dissoudre parti bi tas affaire bi du bëri ñu maam ñoo xamante ni danañ danañ danañ kii. danañ mhm. danañ ko kii quoi. Mhm. danañ taxaw seen kanam. du dundin bi naka ngeen daan dundee foofu ndax yomboon na. Mhm. xam nga rëbës euh, mën naa ne yomb na yombut. parce que rëbës mën naa ne comme Sénégal li mel lépp noonu la mel genre benn ville bu mag la parce que benn kaso la boo xamante ni kaso bu rëy la am na cinquante chambres. am na chambre yoo xamante ne ni mën nañ ne chambre autorité la am chambre yoo xamante ni chambre sanction la euh, ñun bi ñëwee nag yàlla defal nañ tawféex yàlla wutal nañu chambre bu tane. bu tane ñun fa lañ nekk <laughs> suñu séjour yëpp. Mhm. grâce la euh, mais am na xale yoo xamante ne ñoo bokkoon problème daan ànd ñoom chambre yi ñu nekkoon baaxutoon vraiment. Mhm. daan nañ dund lu métti ñu ko daan gisal suñu bopp daan ko mën a constater. Mhm. Euh, nga xam ne daanaka bi ñu génnee ñoom li ñu doon wax yëpp ñu mën nañ ko confirmer parce que. gis nañ ko gis nañ ñu koy dund. Mhm. patriotes yi famille la ñu woon ci biir prison bi. waaye famille la ñu woon. Mhm. famille la ñu woon euh, suñ musaan génn euh, cours ñun ñëpp ñoo bokk toog di waxtaane projet bi di waxtaane l'avenir mosuñ toog kenn di jooytu wala di waxtaane naan fii dafa métti wala genre. Mhm. moo tax léeg-léeg nga dégg ku ku génn naan la pour lan ñoom li ñuy wax bi nekk si bi daawuñu ko wax bi nekk si bi taloo nañu ko bi nekk bi ñu ngi doon wax leneen. ñun boobu mais biñ génnee dañ laaj. nañu li ngeen doon dund si biir ñu tontu. Mhm. mais mun mënuñ nekk si biir di dund loo xam ne daf dañuy génn. di wax dëgg fa yàlla nag. Mhm. mais bi ba pare ba loolu jeex nag. Mhm. ñu am ku ñu jox micro ne ñu affaire bi nu meloon boobaa mën nañoo tontu nii la meloon waaw. ci kii bi man bëggoon naa laaj parce que dafa am benn baat ah. bu mu doon commencé di dégg. te man dama sant yàlla bi bi yemee fii. ndax loolu rek ku mën a ñëw di wax force spéciale wala wala di wax. Ousmane Kabilim ne dafa yore armu nangam nangam. soo hmm. amee kuñ na la dafa jaar sudan <laughs> man pour ma sëñ bi xaj na li mu sant Mbàkke dana ci xaw a participer xaw ko dédouaner tuuti. Hmm. mais pour man yow bu régime bi continuer woon di am doole. Hmm. ndëgg nii waxatuñ ko. maanaam mën naa ne dana doon élément boo xam ne lépp lañ koy gàcc. parce que boo xoolee fu mel ni France wala yenn kii bu ñu la waxee boo jaaree ñu ne jaar na Soudan surtout wala Afghanistan wala xeeti dëkk yooyu. dañ lay maanaam loolu bi ñu koy dégg ñu commencé di alimenter loolu la la ah, loolu fois maa ko maa ngi ko dégg si benn émission ba mu fa jëri. benn xarit bu fa demoon. Hmm. Ah, ku ne benn journaliste di ko wax ne kii nekkul ne dëkk yi jaar moo tax gars yi ba léegi mu nanguñ ko bàyyi. Euh, mais yaakaar naa en réalité loolu warul am ci réew mu sérieux mhm. euh, ndax euh, Soudan ba ma fay dem jàng moom fa yóbboon et seulement jàng kese laa fa def bi ma paree tamit ñëwaat naa Sénégal def naa fi un an am na après ma doog demaat dëkk bu mel ni Turquie xëy na Turquie tamit même chose la ci mooy Orient bi foofu mhm. noonu xëy dëkk boo fi jaaree buñ la déggee si am na ñoo xamante ne mën nañ jéem a collé foofu noonu dara pour wane ne kii dëkk yim jaar Euh, maanaam bi ñu koy tuumaal méngoo na ak loolu xeeti wax yooyu noonu mais man en réalité li mu jàpp mooy loolu kenn waru koo moom kenn waru koo moom kenn warul fonctionner noonu. Mm-hmm. ndax nit man sax nekk dëkk boo am guerre dëkk bu bëri ay problème euh, affaire jihadiste ak yooyu sax te du am problème ak moom du am benn relation xeet xeet nit ñooñu. dëgg euh, nit balaa ñu koy jàpp si dara dañoo war a gis mu posé acte boo xamante ne nii méngoo ak tuuma yi teg ci kawam. Mm-hmm. vraiment mm-hmm. loolu laa gis. donc foofu tamit ku xalaat tamit sa dem bi ngay dem sunaa tamit nga xam ne. Ah, jékki-jékki mais loolu tamit mm-hmm. euh, euh, est dafa tekki aussi dëkk dem ci dëkk yooyu rek forcément. <laughs> da nga ah, da <laughs> bokk ci <laughs> li ñu wax ay terroriste tekki ay force occulte. bon man dafa am tax parce que maa ngi kii ci fort ci yenn kii ni ngay demee surtout bi ngay dem Soudan nga xam ne daanaka kenn jógu la da laxas dem mhm. maanaam laxas dem pour jàngi mais laxas dem boobu nit mënoon na ko interpréter ci mhm. <laughs> ci beneen kii parce que gis nañu ay doomu France yoo xam ne dañuy jékki-jékki laxas dem fenn après mel neneen ak neneen baaraam lu ko euh, naa ngi ñëw ci xëy na man Soudan ba fay dem bourse laa fa demee am na solo bourse bourse d'étude laa fa demee dama doon fay chaque fin du ma mhm. mais jàng ñu may fay état bu Sénégal tamit daa ma yónnee sama bourse foofu. Mhm. moom bourse étranger bi. Mhm. ma ko daan jot mm, ci diiran yam fa nekk yépp ah, xëy na bi may dem ñu bëri yëguñu ko. ndaxte man bi may doog am bac li mu bëggoon mooy du ma am bac ba pare toogaat ci réew mi lu yàgg du ma am université. parce que bagu arabe laa am. te comme que dama bëgg ko ni ci université arabe te fii. amatoon ay université jamono boobu noonu. te yeneen dëkk yi xëy na mënoon na bañ a yomb trop. Mhm. ma gis Soudan option boo xamante ni man convaincre na ma jël ko. mais bu dee laxas bi moom xëy na bi may dem daan Moussi la gënoon nduru laxas parce que boobu moom kenn yëgu ma mhm. damay xëy xëy rek dem. Mhm. bi may dem foofu ci Sëñ Abdourahmane mais bu dee Soudan moom xëy na ñi ma gënoon a jige yëg nañ ko. waaw mm-hmm. ah. mais nag bourse laa demee woon foofu. Mm-hmm. ñu ñëw ci euh, euh, dundin bi ba tey ci biir euh, prison bi gis nañ ni ci seen ginnaaw maanaam di ngeen nekkee ci biir prison bi ci la ñu jàpp seen leader mu Ousmane Sonko ci biir prison bi aussi ci ngeen yëgee ni voilà Diomaye Faye jàll na moo nar a nekk candidat wu wu ex Pastef comme ni ñu koy waxee loolu mm-hmm. aussi. Euh, patriote yi nekkoon ci biir prison bi naka la ko doon dundee. Euh, ñaar nga wax mooy bi ñu jàppee président Ousmane Sonko ak bi ñu tànnee Diomaye. Mhm. bu njëkk bi bi jàppee président Ousmane Sonko bi ñu koy a yëg xawoon lu ñu metti mhm. ndax ñun gëmoon nañ ne président Ousmane Sonko donte xam nañ ni nguur euh, bi mu ngi woon ci ay tànkam pour jàpp ko mais jàppoon nañ ni du du doon lu yomb quoi. Mhm. moo tax bi ñu ko jàppee affaire bi xawoon nañu maanaam yëngal tuuti xaw nañ jaxase. mais nag ànd nañoo dal euh, toog aussi tamit bi mu waxee ne nañ ñëpp grève ñu ñëpp dañoo grève def grève de la faim waaye dañoo def grève de la faim euh, dañ am am mais nag am na ay différent am ñu def ay deux trois quatre jours parce que dañoo commencé am léegi euh, kii bi prison bi ñu ko jiitee commencé di wax ak ñun dem sax ba indi ay ay ay ay information di wax ni président nee na ngeen bàyyi te ñu boobu communication suñu diggante moom desoon na. Mm-hmm. ci loolu am ñu commencé bàyyi am ñoo xam ne nag continuer wu ñoom dañoo continuer dem ba daanaka. avion la mujjee mm-hmm. comme ku mel ne euh, Hannibal Djim si la bokk. Ah, ak Hannibal Djim euh, ñoo bokkoon fu nekk foofu mais moom. pavillon sax la ñibbee bi ñu koy bàyyi pavillon la génnee parce que dafa continué woon grève bi bàyyiwul. mais ñu bëri si ñun après bi ñu wax ne président nee ngeen bàyyi dañoo bàyyi. mais li mu bëgg foofu mooy. Mhm. doon nañ ko topp ba léegi bi mu nee dañ ko maam gis nañ dañ ko jaajëf parce que maam doon nañ si daan foofu. Mhm. gis nañ euh, bi Abdou Karim Diop di wax charge yi en direct ñu ngi ko doon seetaan euh, mais bi ñu ko dégloo dañoo xam ne ñi ba léegi dañuy manipuler rek. Mhm. dañuy manipuler tey it lii peuple bi du ko seetaan ñu loolu nañ gëmoon tôt ou tard sénégalais danañ génn danañ taxaw. xeex loolu. mais bi demee tamit ba nga xamante ne affaire yi sës na mu tànn jumaay wane ne moom projet bi la jiital ñun loolu dèjà teloon nañu si yee teloon nañu gëmal que ne affaire bi du Ousmane Sonko du benn nit mais projet la. Mm-hmm. projet bi avec ou sans Ousmane Sonko day dem ñun loolu yàgg nañu ko wax euh, moo tax bi mu demee tamit ba affaire yi euh, commencé dëgër mu jiital jumaay ñun ñëpp dañu si ànd dafa am muy tànn jumaay. mboolem ku bokk Pastef xamoon na ne Diomaye c'est le meilleur profil. Mm-hmm. après Sonko pour jël intérim bi euh, wala boog pour maam pour kii ko maam pour wut ko. d'accord moo tax bi mu defee ñu ñëpp dañ si ànd. dañ si ànd am sax ñoo xamante ne ci biir kaso bi dañ daan def di bind ci Diomaye di sensibiliser di def defar ay tiset ci biir. di ko sol mm-hmm. tiset yoo xam ne dañu def Sonko mooy Diomaye genre yooyu man rek ci garab gi ma daan toog bind naa ay ay kii ay ay ay poème ay ay poésie ci Diomaye. bi ñu toogee foofu ñu daan toog foofu ñu daan waxtaanee. Mhm. amoon ambiance bu baax a baax ñun ñëpp ñu ànd ci choix boobu noonu. macha allah euh, gis nañu aussi ci. Euh, bi ñu dàqee élection yi nag boobu laay wax. <laughs> loolu aussi <laughs> war nañu xam naka ngeen man réaction ngeen amoon ci bi ngeen yëgee élection yi dàq nañu ko. non boobu moom leneen la boobu moom rëbës lu ne mënoon na faa xew. nga ni ma te mënoon nañoo toog fii di wax na am na ay ma wala dara. Mhm. jour boobu moom kenn nangu ko. loolu moom dañ ko dañ ko rejeté dafa tas ñu sàmm bi ñu ne ko mu sàmm 48 porte bi dañ ko daj. te loolu yaakaar naa mosul am rëbës ñoom ci jëmam dañoo tiit ñoom ñoom garde pénitentiaire yi parce que li ñu gis ci détermination ci xale yi mosuñu ko gis da gis ku maanaam gars yi taxaw ci tool bi yor ay ay armes yor ay mais gars yi dañu taxaw ne wuñu leen faale wuñu leen. Mhm. def leen lu leen neex. maanaam kii quoi agent yi ay. agent yi waaw maanaam dañu yor arme yor ay ay ay kii. ay grenade lacrymogène di sànni ci biir chambre bi ñoom suñu biir chambre sànni nañ fi ay grenade mhm. ay ni mu ak ni mu xatee ay paa ña nga fa yu am ay asma daanaka amoon na am ay ay de mort c'était très trop dangereux vraiment. Mhm. Mhm. loolu amoon na fa di dóor ay bal balan. détenu yi di dóor. ci seen kaw ci kaw foule bi. d'accord dalul kenn nag en réalité. mais mënoon na dal kenn. te loolu taxutoon sax booy taxaw ñoom pour booy taxaw ñoom dañoo mobiliser wu ñëw di leen dalal. di leen ñaan pour ñu bàyyi ci loolu lañ mujjee mais lu ne mënoon na fa xew jour boobu noonu mooy le 3 la yaakaar naa c'était le 3 euh, février. Mm-hmm. waaw bis la woon boo xamante ne nii mënoon nañ dégg lu ne rëbës mais alhamdulilah. Mm-hmm. déggoo mujj na am suñu dégganteeg ñoom. parce que ñun li ñu jàppoon mooy ñun ñëpp li doon xaar mooy. Mm-hmm. élection yi le cinq février jot ñu fal maam ñu fal jomaay. jomaay ñëw génn si ñu. mais mais foofu am na ñuy wax ne am na ñu fa jógee trouble maanaam psychologique parce que am na benn waay bu koy wax ba dëgg ni daal ne nañu bàyyi naa jàpp ñëpp la loolu jàpp. Mhm. ndax yow xool nga sa yaram wala yu demee euh, man jàpp naa ne amuma problème yooyu xooluguma sama yaram ci benn médecin wala genre. Mhm. mais jàmmatuma dara. Mhm. dégguma dara lu muy métti si gëmmante bi am naa problème. ci ci côté mental mais gis naa ñoo xamante ne nii. ña nga am nañ problème physique. Hmm. ndax foofu imaginel daanaka euh, maanaam vingt quarante huit heures yi cinq heures daa jàmm pour génn sa chambre cinq heures temps. Hmm. tax tey boo génnee cours suba. Hmm. am nga euh, neuf heures jusqu'à midi trois heures temps. beneen jour bi cours ngoon ngay génn cours ngoon bi c'est quinze heures à dix sept heures deux heures temps. à loolu lépp da ngay fermé wu doo mën a buusi lu bëri lépp dafa xat da ngay toog rek toog toog xam nga loolu lu ne mën na la ci dal. moo tax ñu bëri dañ ciy jëlewaale ay feebar aussi tamit euh, ku mel ne Azoura Fall gis ngeen ko dafa génn waale laago waaw mm-hmm. ah, loolu nekk lu métti am na ñoo xamante dañoo am problème mental dañu dem ba boo dañu xam nit ñi euh, psychologiquement am nañ jafe mm-hmm. ah, yooyu yëpp ci prison bi la leen mais mais bi métit yooyu doon dal prisonniers yi ci biir ndax daawul dem ba ñenn ñi ci bokk ci yéen daan daan xaddi ah loolu mosul am nag. maanaam mhm. lu metti metti jamonoy tàngaay bi. nga ci lañ gën a gëm projet bi baax tàngaay bi <laughs> tàngaay bi affaire bi da daan jàpp yaramu xale yu bëri. Mhm. seen yaram am ay picc. Mhm. yow sax léegi-léegi da nga ñii waruñu maa jege parce mën nañ ma wàll wala dara. mais jamono boobu la ñuy gën a gëm projet bi. macha allah gis li li laaj mooy projet yaa ngi am ay nouvelle am. ci lu mu nekk. Ah, campagne yi maanaam élection yi dana am du am yooyu lañ lay wax. wax politique kese lañ lay wax. maanaam ça veut dire côté boobu noonu moom régime bi daf ci échec fekkee li mu bëggoon ci xale yi mooy tiital leen bañ dellu ginnaaw ci seen gëm-gëm loolu am ko mm-hmm. Mm-hmm. ñi gën a sonn ñi gën a sonn ñoo gën a gëm projet bi mm-hmm. am na ñoo xamante ni man xam naa leen euh, ñi seen waajur faatu na ñu yëpp ko mais dañ koy jooy mu metti nga ànd kook ñoom mais suñ paree dañuy wane ne ba léegi ñu ngi si te lañ gën a te lañ gën a wu te ñooñu sax xëy na amuñ tur kenn xamu leen mais dañoo am affaire bi dañoo maam gëm-gëm la maam benn suur am na ku may wax ne ko président Ousmane Sonko li mu def ci ndaw ñi daanaka moom la sëriñ si daan def ci seen ay taalibe. macha allah moom yor ay militants mais ñu ko gëm lañ ñoo xamante ne pare nañ pour pour faatu ngir moom. Mm-hmm. am na sama benn koo xamante ne ni ñoo bokkoon chambre dane ma am na xale bu ñu rey ci mois d'août bi Pikine bi muy faatu li mu mujjee wax mooy bu leen bàyyi proche. Mm-hmm. waaw bi muy faatu xam dañ ko jam dañ ko dañ ko jam mm-hmm. loolu la mujjee wax ça veut dire que loolu gëm-gëm la bu fort a fort boo xamante ni weesu nañu liñ mënoon ci champ politique bi mm-hmm. euh, loolu nag ci ci biir prison bi ñu dañ ko doon gis dañ ko doon constaté bu baax mm-hmm. ndaw ñi heure su gënee metti heure boobu la ñuy gën a téye heure boobu la ñuy gën a nekk euh, benn boobu la ji gën a motiv motivation bi ñu àndal engagement bi ñu bi ñu génnee da gis ko génn sax wax ni projet bi tey la ma gën a ñor tey laa ci gën a nekk donc euh, pour yow lan moo leen motiver pour ba ñu gën a gëm projet bi waaw ah, loolu lu luñ gis la xam nga xam nga nit bu lay woo si dara ba pare jiitu la lépp lu la wax nga gis ko mm-hmm. boobaa amul lu dul gëm ko mm. Ousmane Sonko li ñu wax ne dañ koo gis waaw ah, moom benn Euh, jëmmam rek dafa maam boo ko xasee ba xam benn dafa nekk nit ku aimable da koy bëgg mais tamit dafa dëggu. li mu dala si jiitu. waaw du la nax li mu lay woo aussi tamit te da koy gis danaan la lii nga gis ko ah, loolu moo tax ndaw ñi dañ koo gëm. dañ ko gëm bëgg ko. Mm-hmm. Ah, loolu moo tax tey bi ñu demee ba am jafe-jafe affaire metti delluñ ginnaaw. macha allah suñ dellu ginnaaw benn yoon vraiment. Mhm. Hmm. Saa Wolof loo ci sànni. waaw li ma ci sànni mooy man dafa ma gën wan seen état d'esprit. Mhm. gis nga ñoom ñu ngi lay wax ne dañ ko dund dignement mais benn jamono rek la ñu am jiix jaaxam mooy biñ nee leen élection yi dàq nañ ko. seen espoir léegi kon da xam ne. dafa am lu taxoon mooy mhm. projet. dëgg la maanaam nit ki dafa ñëw jaay leen dara. li mu leen jaay ne lii mooy defar Sénégal ñoom ñu gëm ko. Mhm. ku mel ni moom génn la dem na turki mhm. gis na ne mu mal nangam nangam. Mhm. c'est pas pour rien mu ñëw euh, bëgg projet bi. ma sàcc wax la fi mu yaroo wala fi mu doon nekk fii ci dakaar di ki ko xam Alioune Badara Cissé nga koy xam. pourtant ci jamono bu mu gënee nekk xale tànnul dem APR. lu tax mu tànn dem Ousmane Sonko parce que l'idéal la doon wër. macha allah maanaam Ousmane mooy nit boo xam ne man dama parfois damay wax ne ñu bëri dañuy wax sax ndaw ñi xaj nañu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw. Mhm. mais bu dee comme ñun ñuy nga xam ne suñu âge nga xam ne ñenn ñi ëppal nañ 30 ans di dem man dama naan ñooñu indebee leen suus ni mu suusee eh, euh, Ousmane. Mhm, mhm. maanaam dañu màgg ci réew xàmmee ràññee mënuñu topp ci ginnaaw keneen ku dul kon bu man. fi mu wax yëpp may xool jaar-jaar ci ay xat-xat koo xam ne li ngay libre du bari même li ngay ñëw ci cours bi du bari gis nga lu jëpp dañ leen tëj fi ñu leen tëj baaxul mm. mënoon nañoo yokkat mm. mënoon nañoo yokkat ba pare seen ay mbokk surtout te xam naa laaj boobu mooy doon sama laaj sax su ma su ma su su ma daanele mm-hmm. mais ànd ak loolu yëpp yëgaluñ ko seen yaram parce que ñi ngi xaar xam nga li ñuy wax yaakaar mm. c'est pas pour rien Macky Sall doon wax APR yaakaar ñuy wax yaakaar yaakaar parce que dafa am lu Euh, yonentu yàlla Mamadou wax ci yaakaar am na fu muy waxee yaakaar naa ci benn xaadis ma juumut ne yaakaar yërmande la. dëgg la bu du woon yaakaar ndey ji du nàmpal doomam. Mhm. du sardine bi du jëmbat garab. Mhm. ndax kon doo xaar di ko fa di fa toog di ko xaar yaakaar nga am léegi ñoom xat-xat yi ñu nekk yépp ñu ngi yaakaar ne suba day baax. Mhm. léegi nag bi ñu nee élection yi amatul loolu dafay mel ni benn xeetu yaakaar bu tas. gis nga problème mu yaakaar ni mu amee problème. foofu noonu moo tax tas yaakaar baaxul. fecc kóllëre baaxul. Mhm. léegi nag Ousmane bi ñu àndal jàpp nañ ne kii du tas yaakaar du fecc kóllëre. Mhm. moo tax ñu gën ne ko ñàpp. loolu la rek moo tax bi mu leen tegalee leneen amaru Ba dafa tànn Macky Sall dafa tànn Amadou Ba. Mhm. partem tas Ousmane ko tànn Diomaye nit ñi gën a suudewu ba ñeneen ñëw ku mel ni Abdourahmane Diouf. su demee ba mën a ñëw topp ci ginnaaw benn candidat da xam ne la mu fa fekk la. soo ñëwee fekk lu bari act yi nekk yi njëkk a teg ci seen programme yëpp. Mm. am na ci yoo xam ne nii surtout ci affaire programme doomu daara yi. Mm-hmm. patriotisme économie. Mm-hmm. man bokk naa ci ñi nga xam ne tey mën naa ko wax fii man bokkoon naa ci ñi parti Abdourahmane Diouf woo ay kàngam ñëw wooma pour ma ñëw jàpp ci ñoom te xam nañ cofeel laa am ci ñoom. macha allah parce que ñun kuréelu saawala fii li ëpp ci ñun. Mm-hmm. ay waa Pastef ñoo fa ëpp. maanaam ñi ëpp ci ñun. Pastef lañu bëgg. Mhm. ñëpp ci ñun Abdourahmane lañ bëgg ñeneen ñi am nañ ci. mais côté loolu nag lan moo tax mooy seen programme. Mhm. ci surtout suñu làkk yi nga xam ne moom la ñu war a privilégié tey ñu nekk ay langue officiel. macha allah loolu noonu bokk na ci. Mm-hmm. kon suñ demee ba loolu di am rek lu dagg moroom jalay fekk. Mm-hmm. Mm-hmm. man loolu mooy jàngat bi nga xam ne moom laa ci xaw am. léegi nag ma toftal ci benn laaj maanaam diggam ak nan la def diggam ak comme soxnaam. yaayam biñ ko dugalee ci foo xam ne mosul woon a xalaat mosuñ ko ramasse sax yaakaar naa bu amee police euh, affaire bariwut bu dul wut pièce wala dara parce xam naa ki may waxal quand xam nga voilà loolu man ci côté njabootam. famille bi naka naka lañ ko doon dundee ko dundee surtout yaayam. Mhm. Euh, au début bi ñu may doog a jàpp doon naa doon naa xalaat bu baax sama yaay ak sama soxna bi nga xam dafa nekkoon en état. Euh, mais bi ma leen jotee rawatina sama yaay amoon naa tiitaange trop affaire bi féete ko kaw. Mhm. jëmee ko kaw mais li ma wax mooy comme que yaa ngi foofu fexeel bu fa def lu lay xeebee. moom loolu la ma ma doon luñ lay xeebe macha allah bi waxee loolu nag dama ne alhamdulilah mm-hmm. léegi dafa mel ni dama am benn charge bu diis mu am na mm-hmm. mu des beneen muy soxna si moom boo ko déggee moom it mu nekk jàmbaar trop vraiment euh, doon ko gérer ma ba yàlla def mu mucc mm-hmm. ci période bi mu nekkee foofu moom bi mu muccee si jàmm waaw sama ginnaaw moom it loolu tamit gën na oy falaat affaire yi te yaakaar naa bis bi ma gën a gën a bëgg ci diiraam a nekk euh, foofu mooy bis bi bi nga xamante ni moom mucc na mu mucc am ay ay ay doomi góor vraiment mu doon mbégte bu mag a mag si man ay seex ay seex yu góor waaye macha allah Euh, euh, ban euh, message ngay daal di lancé ngir li nga xamante ni am na ci réew mi ci ñetti at yu mujj yi bañ fee amat amati beneen nguur buy ñëw. Hmm. mu fexee def le tour ba li nga xamante ni moo xew ay ndaw yu bari ñu dugal leen ci biir kaso beeg yeneen yu ñu mel. bañ a amati ban message ngay lancé. Ah, message bi may rawatin na jëm ci ndaw ñi. Mm-hmm. mooy ñu xam ne déjà changement bi maanaam réew mi soppeeku gi ci war a am. Mm-hmm. Euh, defaru gi mu war a defaru ñu ngi ci yoon bi nga xamante ne nii moo ñu fay àggale. Mm-hmm. te dèjà sori nañ ci yoon bi trop li ma leen wax mooy nañ gën a takku gën a gën a dëgër xam ne li ci des bëreetul. li ci des bëreetul ñu ànd ci euh, derrière coalition bi nga xamante ni moom lañ président Ousmane Sonko tànn maanaam woow muy mm-hmm. coalition Diomaye président pour fexe ba élire suñu candidat dès le premier tour. bu ko defee ñun ñëpp gis nañ bi mu wootee ci ci ci ci ci programme am. Mm-hmm. Euh, ku gis lim li nga xamante ne nii moo moo nekk ci programme bi moo ko ëmb euh, dinañ xam bu baax que ne euh, programme la boo xamante ne nii moom la Sénégal soxla programme la boo xamante ne nii moo war a defar Sénégal moo tax maa ngi woon ndaw ñëpp ne leen nañ gën a takku gën a nekk benn fexe ba li ñu doon xeex ba ba léegi li tax suñu ay mbokk yu bëri di tax suñu ay suñu ay moroomi ndaw yu baree bari Mm-hmm. seen maam seen seen dund des ci combat bi. li mm-hmm. tax suñu ay moroom ndaw yu bëree bëri amee ay laago li tax suñu ay moroom ndaw yu bëree bëri dund lu metti ci kaso yi loolu waruñu sàggan ba muy maam ba muy naxsaay. d'accord te loolu sax mënul am ah, li ci des bëreetul nañ gën a mobiliser wu gën a nekk benn. fexe ba li des ci combat bi ñu ñu amal ko ci ni mu gën a baaxee mooy fexe mobiliser bu baax mm-hmm. ah, waajal élection yi def ay porte port porte ci kër yi sensibiliser nit ñëpp góor mag jigéen. déjà nit ñi xam nañ mais ñun mais ñun li ñu bëgg. ci Touba exactement Touba Touba. moom moom Daaru Salaam la nekk foofu sax nga may ma ndax ndax yow bi nga ñëwee ci parti bi. ak waa parti bi ñi fare foofu. seen mhm. taxawaay ak ñoom. Hmm. ak yow fi ngay milité ci Daaru Salaam hmm. naka la maanaam ndax yow. foofu xam nga xam nga man déjà déjà comme que damaa nekkoon diaspora bi nekkoon hmm. turc bi may doo a ñëw damaa dem. gisanteeg cordinateur départemental bi gisanteeg ñi nekk ci commune yëpp wax leen na leen man ñëw ma pour pour toog noppal wala dara damaa ñëw pour continuer liggéey bi ma nekkoon. macha allah da def tuuti. laa bëgg continuer di ko def ah, li ba mu waxee ñoom ñoom tamit ah, xëy na dégg nañ loolu ànd seeg man moo tax déjà Mbàkke commencé nañ suñu suñu suñu suñu campagne commencé nañ ko depuis dimanche ah, ñu ngi def ay campagne démb rek ñu ngi woon Sadio. man xëy na maa ngi woon fii pour yeneen ay raison yu ma doon lijjanti maanaam yeneen soxla yu mais dès demee dinaa ànd ak ñoom. nekk ci coalition bi euh, man maa ngi dëkk Darou Salaam. Darou mooy sama mooy sama mooy sama dëkk fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee. Mm-hmm. Euh, moo tax xam naa su ma ñëwee dinaa gën a saafante ak ñoom dèjà manqué woon pour ànd ak ñi ñi bokk ci coalition bi yëpp ñu dugg Darou bu ko defee gën a gën a waxtaan ak mbokk yi waaye def ko ci département bu Mbàkke yépp mm-hmm. nga xamante ne ni liñ bëgg euh, ci élection yi mooy gagné dès le premier tour mais ak benn écart bu mag pile de soixante quinze pour cent. Mm-hmm. comme que département Mbacké mooy département bi gën a ëpp ay nit ci Sénégal. Mm-hmm. dama bëgg mu doon liggéey gën a symboliser. nga xamante ne nii lañ fay am duñ ko am ci beneen département bokkut ak bokkut ak moom. macha allah moo tax li may woo ma woote bi may woote ñoom laa si jiital. Mm-hmm. Euh, ñun ñëpp nañ gën a ko fexe ba Mbacké. ñi xale yi nga xamante ni jëleeguñ seen carte ñu dem jëli ko. Mm-hmm. ndax comme que man xam naa si dara ndax dama changé bureau de vote bu yàggul. Mm-hmm. bi ma demee jël sama carte gis naa ne carte yi ma nga fa mu ngi ci préfecture bi bëri na fa trop kon ndaw ñu ne dem jëli seen carte yi bu ko defee ñu ñu fexe ba élection yi comme que si koor la. bu ñu xaddee ñu teel a dem wote ji. Mm-hmm. nga xam ne bu ñu ndogoo rek dinañ mën a commencer di jubilé. comme ni ngeen koy waxee. Euh, mais mais mais foofu ndogu jubilé. ndogu jubilé mm-hmm. mais foofu moom man xam naa yow suba ngay dem mais man ginnaaw suba dañ ma xaar. parce que <laughs> xam man daaru man tamit man sama. concurrent foofu.